laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah abonné leen ci seen seen ci seen YouTube Darou Fall TV jëm leen a jëm ci sëriñ bi faw ak ndigalam te jox ko mbir yépp ak jur gépp yi waa ngi sëriñ bi jox na boroomam jëkk tey li mu am boroomam it ni ko sam réew ak sapal gaa ngi tey jii di alxamis dëppook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru jumaada la rakkaati gàmmu 1445 ci gàddaay gi dëppook juróom-ñaari fan ci weeru décembre 2023 sëriñ Badara Fall ilmu Cheikh Moussa Fall ñëwoon ci sëriñ Ngunda Fall Yaasin Ndokki xalifu Cheikh Moussa Fall doon jaayante di ko jébbal boppam bàyyi naw sa sam ba mu jeex noo toll nun ci pexe dal nag sunuy sas te bay sas yaa ngi añ yaa ngi laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah abonné leen ci seen seen youtube Darou Fall TV abonné leen ci seen seen youtube Darou Fall TV